ci réseau yi ay film ñu ne dafa am euh, benn gaal bu accidenté ak benn bateau euh, chinois euh, ba ñu xëpp leen ci ay produits ak yooyu accident bi mu amee man samay service rendre nañ ma compte muy la DPSP mu ngi am accident am na entre gaal boo xam ne ay Sénégal suñu mbokk lañu ak navir boo xam ne armement sénégalais moo ko moom bu nekk port de Dakar kon damay ñaan nit ñi bu yi amee nañu éviter li ñu wax stigmatisation surtout toujours ci même même euh, origine bi parce que day nuru leneen te yàlla xam ne ñun sénégalais meluñu noonu euh, erreur mën na am ci appréciation parce que da ngay xool bateau ba rek nga ne béréb sàngam la jógee wala bateau étranger la damay wax sénégalais souvent accident yu bëre dañu naan bateau étranger fekk du bateau étranger bateau yu nekk fii la yoo xam ne ay armement la yu fi ne euh, yoo xam ne fii lañ leen immatriculé kon loolu dama bëggoon précision boobu wax ni danaa laaj sax DPSP bu paree mu def benn communiqué pour wax exactement mbir moomu lan la pour l'instant bëgguma tudd turu armement beeg yooyu mais man yor naa rapport yi nga xam ne euh, armement pignon sur rue fii ci euh, port de Dakar moom moom bateau bi accident nag day am waaye lan moo xew lu waral accident bi ak li ci juddu loolu dañ koy seetu bu responsabilité amee dinañ ko situer bu ay sanction laajee dina bu laajee ñu def ko et cetera donc damay dalal xel nit ñi kon ñaan na rek ñu bañ a def benn stigmatisation parce que niñ ko présenté demeewul noonu.